man daal dafa am ay arnaqueur yoo xam ne dañ ma ah, ah, defoon ami Facebook muy benn tubaab léegi ba mu ma defaree ami Facebook mu tudd Gilbert léegi nag ba ñu nekk di waxtaan tout temps tout le temps tout le léegi mu ne ma fan yi naa la yónnee ay bagages léegi mu ne ma defal naa la ci valise bi ñaari iPhone def naa ci deux millions huit cent def ci ay bagages yu bari bari jëndal naa la robe bu lu nekk daal léegi. bon ma connais ok si message bi tontu ko si message bi ne ko ok problème merci légui mu ne ma léegi maa dem aéroport pour yobou ko léegi ba mu demee aéroport pour yobou ko mu ne ma aw volu Sénégal volu Cameroun la am léegi ba défé volu Cameroun bi ba défé volu Cameroun ba paré mom fan la la waxoon fa la nek moom Paris. Marseille la ma waxoon fa la nekk léegi ba ñu waxtaanee yooyu léegi ba volu Cameroun bi ba pare léegi mu boole ma benn xaw transitaire léegi transitaire bi moom ma woo huit pile ne ma bonjour madame ma ne ko bonjour mu ne ma sa bi ñëw na ah ma ne ko ah léegi na nan lay def ba mu ñëw ah, ci valo kii bi. Séné Sénégal mu ne ma dangay def benn fraiment parce que moom def na frainement bi ba pare euh, dangay def frainement bi ñu yónnee ko ci avion bi pour mu dem pour mu dem fee pour mu ñëw Sénégal dangay yónnee soixante quinze mille ma ne ko ah moom moom moom may bagages yi moom moom ma ko jëndal léegi xanaa ma war na def vraiment beex yooyu léegi moom ma benn ko message man ko pourquoi lii nga def ma ko nii mu ne ma non defar léegi loolu un petit somme la defar après dinaa la yónnee xaalis man ko kon ok léegi ma daj ma jël euh, soixante quinze mille co yónnee ko ko léegi ba mu ko yónnee soixante quinze mille yi noonu léegi mu ne kii bi transitaire bi woowaan ma ne ma am na ku ko téye il faut ñu bind la benn genre lettre nga xam ne bu ñëwee aéroport Sénégal kenn du la téye léegi ma ne ko waa léegi loolu pour lan mu ne ma dangay yónnee cent vingt mille man ko man yoruma xaalis boobu mënuma la yónnee cent vingt mille léegi ba mu ne ma danga may yónnee cent vingt mille man ko mënuma la yónnee loolu sama sœur bi ne ma yónnee ko kon dañ la ko kii ba ma léegi man ko ah am problème léegi ma yónnee ko ma yónnee ko cent vingt def ko wari ba ma ko defee wari noonu léegi mu ne moom jotu cent vingt mille léegi mu ne ma trente douanier yi téye nañ ko waat mu génne ma photo douanier photo yaay preuve peñ gi sama portable léegi mu ne ma da ngay yónnee trois cent cinquante mais man ko man mënuma ko yónnee parce que yoruma xaalis mu ne ma di nga fexe ba yónnee lii affaire yi ñëw dootuñu la téewati man ne leen mënuma ko duwaañe bi waxtaan ak man ak yooyu man ko mënuma sama sœur bi ne ma kon léegi mënoo àbb ci natt bi nga yónnee ko man ko déedéet du ma laal xaalisu jàmbur. da nga yow da nga gis daf la yónnee photo duwaañe bi mu doon. waaw yëpp a ngi preuve bi yëpp a ngi sama portable. waaw preuve bi yëpp a ngi sama portable. léegi nag waa natt ma ñu lebal ma ci natt bi cent cinquante mille ma yónnee ko Western Union affaire yëpp a ngi sama portable preuve yëpp mi ngi léegi ba ma leen ko yónnee léegi ñu ne ma jotuñu jot nañ xaalis yëpp waaye jotu cent vingt mille yi ñu ni ma benn genre problème ak yooyu léegi ba ma demee sama benn caamin duwaañe ma won ko lépp mu ne ma ñi ànd naa kër nañ mu won ma photo Cameroun Cameroun euh, douanier yi seen yi ni ñuy sol mais après ba ma toogee nag xamatuma fu may jëm xamatuma lan lay wax parce que natt jàmm yi xaalis location bi ñu ma taxaw ma taxaw tey lañ ma indi plainte téye ma ba ñu may ma 24 heures 24 heures lañ ma may waa police neeñ ma boo indiwul xaalis jàmm dañ lay defeere waaye nag ma jaaxle ne ñëw fii nag pour ku ma aider rek la xaalis baa ngi preuve bi yëpp a ngi sooda. preuve yëpp ay ngi loolu kañ la woon euh, ça une semaine tey rek maa ngi déggante ñoom policier bi sax déggante naa ñoom police kat yi déggante naa ñoom man ba may defaat sama plainte ñoom déggante naa ñoom ñu may woo tey ci huit heures ñu may woo boo maa ngi police boo maa ngi police <laughs> depuis samay muy samay morom ñëpp bu yowoon na ngeen méfier si nit ñi parce que instant yi nii affaire bi am na doole ba nga xam ni ana kër yi am nañ doole ba nga xam ni doo comprendre bu yowoon na xale yu jigéen nañ méfier nag te muus. parce que sama benn càmmin léegi laay expliquer moom mënuma man benn tubaab léegi la ma woo mujj bi dama ko mujjee wax ko naka su dul noonu. parce que affaire yi soo doy na waar doy na waar man damay wut nag ku ma def dimbal instant yi nii waa police 24 heures lañ ma may borom natt bi nee na bu ma ko indul dañ may defeere instant yi nii xaw ma fan laay jëm moo tax ñëw fii wut si wàllu.